Assalamualaikum wa wabarakatuh. barakatu mbokk te day ñu ñew ci ñaareeli xaj bi ci jotay bi tay fama ma daanelee mooy koo iblis ak mon ñoy ñoy sa waajur ñola la laal kay wala ñoy sa seri yow do meuna bax do meuna juk do meuna leer da ngay lendem da ngay lecc dangay jubadi te soo nekkee ci lëndëm ci njubadi ak ci lëj lu lëndëmal rek ci ngay dox lu juba di rek ci ngay dox lu lëj rek ci ngay dox loolu ku ko jikkewoo dangay doon jaani njàngoor boo xam ne danga amee lii nga xam ne soo màttee nit mu dee loolu rek la moo tax nag ma ne leen bakkan xol xel li leen di leyal moo di li ñuy wax ak li ñuy jëf waajur ba nay wax xale ba loo xam ne su xelam génnee su xolam génnee su bakkanam génnee dina daje loola lekk ko te du doon lekk bu lewut lekk bu bon loolu la xale lañ la jàngal ci kër ga rek ngay def bés ànd naag koo xam ne kooku mun naa ko ooyee njabot mok domam ma oturi dombi bi mau ne ma ko mbiidaa lo loo wax loy wax ma seppu wajur ba seppu domba wajur ba nak nangu mané domba ma tudda domba ba ne ma mu nopi mané ko suma la tudé da ngay nam wajuram ñu ci auto bi de ma tudda ko mu ne ma tuddaat ko mu ne naam ñetti yoon mu ne naam ma ne ko su la nit ooyatee bu ko ne ko mbiidaa mooy nga ne lan xam nga loolu dangay dem ci ay kër fekk ko fa léegi walla ngay wax ak nit mu taxaw di la xool bu ci kanamee mu naan la ma ne dégg naa la waxal noppay dégg du mbóot mu ngoog su fekkee ne yow ci kër gi noonu ngay waxee te sa doom bi toog du ko dégg dafay defe ne loolu moo correct walla nga gis ne nay dañooy eewu jamono ñun suñ jamono xelaatuloo ko sax eewu suñ kër nga xaar gannaaw boo selmoo ba julli su ma góor gi daf ñu ko daan wax balaa ngeen may nuyu di ma tabbal garaati baay na ngeen julli ci yàlla mi defar bàyyi ak yaay waaye nag soo eewoo nga jàng sa aluwa ba noppi ah lii nga xam ne moo di salaatul jot ni ko daa julli salaatu jot suba su weesoo foofu fekk selmoon nga ba pare balaa ñuy wax leneen dangay jox sa baay loxo ne ko ba jam waali jàmm nga fanaan mu ne la jàmm rek te soo noyoo sa papa oyu wut la dangay dem ñëwaat dem ñëwaat dem ngoon nga meeg soo ne mu ne la jam tan ne ñàkka lay oyu bi am na loo def lu bugg nga yëg ne neexu ko waaye jamono jii tey soo ko defee ñu ne xanaa moom a génn maa ngi koo oyuwut ma maa ngi koo noyu faalewut ma génnut ma wala koo cee waxat mu naan la xam naa li may def man I know what I'm doing yooyu yépp soo ko sóobee nga seet ko tollale ko ak jamono bu weesu bi dangay dégg ñu naan la jamonoy tey bi ak jamono bu njëkk bi duñ benn déedéet waxal ne jikko ju bon tey ji ak jikko ju baaxi démb bi duñ benn jamono jikko la jamono jikko la ni ma leen ko waxe won la janta bank bi ba leg wer bank bi souf sangi ngalaw bank geej bank bi leppam bi jemi nit wete ko garab ak lu ñuy wax naan jamono jamono kan ci yeen mo musa dox ci mbedd tasee koko wala nga tasee eh, mampata wala nga tasee garabi mango moom la jamu nga fa nga ne ko jam rek doo ko musa deg waaw ne soko selo machine bi dundut sax buga na nga yekko auto soko talé ci si suba moto danga dégg ñu la nga bàyyi ko mu rilanti ba ci kanam yépp éegandoor nitago sa computer bi soo ko rebootee ci suba doo ñëw rek put ko online da danga koy reboot check yépp ndax am na virus amut virus antivirus firewall bi yépp nga check ñekka dem ndax am nga email ndax amula seet ndax sa whatsapp bi am na lu fa dugam ndéet email booba nga seet ndax dafa ànd ak virus nga delete virus ba nitango waajur yu bari ñoo dee dugal virus ci seen doom yi te doom yi amuñ anti wo naka luñ koy tudde anti virus wala firewall amuñ ko firewall yi nit as computer moo jikko ju baax biñ la defal suuxat yërmaande ak njëriñ ak toppatoo ci ci yow fii dangay gis nit ñi ñu gis ay gune di wax wax yu ñaaw nga gis yenn mag yi ree naan gune léegi noonu la ñun bañooy juddu kuntaya bàyyi ku ne dina ma dóor te su ma bàyyi dina dóor ku ne sa doom moo taxoon police yi jamono boobu soluñ uniforme police yi ñu ngi tudda waajur police station ba nga tudda kër ak daara den nga soog a dem school su fekkee ne sa police station seen kër la sa waajur ak sa polis mooy sa waajur ak seen kër mooy station ok sastéson mooy daara ok sa sastéson mooy school sastéson mooy jumaa kon yow soxlawuloo police bu sol uniforme parce que yaay gën a yaru police ba sax police itam suñ la jëlee ne na nga jàppandi ni crime yow sa bopp ngay def crime koy jàpp yaa mooma noru yow police bi sa bopp amula yar koo topp si topp si mi di wax moom wax yu ñaaw wax yu teggi newut nga sol sa uniforme sa belta bi wéngalu sa beera bi demoo fale nga gis ñenn ñi ñu ngi jàpp mobile di wax wala itam yow ki nga waxaat sax ci mobile bi kooku noonu sa boyfriend la te boyfriend bi mun na am sax mu ngi romba ak taxi xool la naa yaa nekka nii yee maa nekka nii te nga ne police officer nga mu romba keneen ku mel ni sa boyfriend doo ko stop yooyu ñoo téye jamono bii waxante dégg te yàlla tax suñu yërëmee dégg jamono bi du wécceeku koo mun di doon ku jiite nga kuñ jiite nga su ñooy wax dégg nañuy jëf dégg Gambia dafa bari waxkati dégg ñu ne sooy wax dégg te doo jëf dégg na xamula dégg waaw yow xamula dégg yow danga bugg a yàpp dégg te dégg kenn du ko yàpp dégg dafa am fulla dafa am fayda de xamalu tax dégg am fulla fayda soko bëggee foyanto nga dem before a court house ñu ne am nga evidence xam nga mu ne nga ne am nga sa dégg ñu ne credible evidence dégg ne man dama war a nekk dégg boo xam ne danga ma nangul ne suma doon dégg yow du yaa koy influence code bi demee ca loola sentence la wala free la loolu tax dégg dafa am fulla dafa am fayda soo leen continuer na di def seen doomi jalan di def seeni jabar jalan jabar di def jëkkër jalan jëkkër di def bank account jalan, dokter di def bank account jalan, civil servant politician ñëpp def bank account jalan, bu boba nak fofu waxante degga du fa dina fa bari way jeb degga du fa bari ya ngee gis te bama ko day wax bala may tej fi. Sar bi seexal islam wax nako soko firé sa danaka doyna. Bismillahirrahmanirrahim. wal asri inna al insan la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasa bil haq wa tawasa bis sabr yàlla dafa njëkkee dégga balaa mooy wax muñ ñu nag Gambia dañ bugg a njëkkee muñ indi dégga loolu moo tax na nekkuñ ci dégga dangay indi sarta teg indi dégga teg atte teg soog a indi muñ loolu mooy dégga suñ ko defee liñ wax ne fii dafa am lu ñu tiital lu ñu ragal dina wecceeku mu jeex tàkk jërë ngeen jëf seen mbokk la Issa Bocar si